Omaro mhm. may dédicace ak gérer une communication mhm. bokkul déedéet bis bu set ma may dédicace koo xam ne bu ma paree maa koo jox lu mu reeree oh. day sàmm barke sëñ Bamba rawal chaque jour man allah ma nuy ki télé bi koo xam ne bu ma paree man maa koo jox lu mu reeree dëgg la mais ñi ma yor seen communication mhm. ñu yëngu ci lu laaj coow laaj bruit laaj visibilité laaj ñu xam leen te yàlla barkee la sama làmmiñ bii ba lu ma tudd réew mi bàyyi ko xel du ma ci tudd kenn te fayow dëgg la est-ce que yaa ngi jaar ci Aïssatou may ma tuuti yaa ngi jaar commercial may ma tuuti ma yeggali dafa nag loolu boo ko bëggee da nga dem Traverse TV yaa ko moom may ma tuuti nga toog wax parce que li nga def ni li trian la émission bi ah, ah trian ah, ah. la man li may def trian la man li may def maîtrise mété faux usage de faux parce que man bëgguma noonu usage de faux xool usage de faux lay gaan usage de faux la kii bu bëggee loolu dafa ku bëgg communication da nga dem ci commercial Aïssatou ne ma man de damaa bëgg commercial dama bëgg sama communication amaroo yor ko. ñaata laay fay. am na est-ce que xam nga dara parce lay fay am na est-ce que xam nga dara. mos la amel dërëm. am na est-ce xam nga dara. xam nga dara. waaw. bu ma la xam di ngi nii fayeeku nga lu ko waral. xam nga lu ko waral waaw doo toog wax li ko waral defal ndànk liggéey si. laaj ko waral. waaw da ay dàq. ay mor da ngaa leb. yow. yow lay yàq mi ngi lay yàq de. waaw léegi lay yàq waaw léegi dama lay yàq. yow boo ñëwee ne Adama sa ba sama fenn ma. waaw waaw mooy fayee ko. waaw dama lay wax Touré moom dafa am ful la. waaw dama lay wax moom day ñëw rek bii de. waaw dama lay wax. am nga fi daal. waaw léegi day liste bi lay xool da ngay ñëw saa boo yëgee Touré Touré xaabar xaabare. da wàcc da ngay sourire. waaw mais dañu lay tànn waaye bu dee ba tët bi dafa six mois yaa waa xam nga. waa xam nga affaire yi. nga affaire yi bu déglu amul bu déglu amul waxtaan bi du neex. Papa Ndiaye bu déglu amul waxtaan bi du neex. am ci kër xam nga man. man dama neex a waxtaanal. xam nga lu tax ma neex a man li xew laay wax. ak li nga yëg. li ma yëg. Omar li wax ci biir lay loo ñàkk xam Omaro. Mm-hmm. xam nga ne li muy wax ci néeg bi lay wax ci mbedd bi. dëgg la. nii la ma yàlla bindee ndax ki ma yar la. Mm-hmm. Cheikh Béthio. Mm-hmm. na benn nit toog lim la bëgg wax dala koy wax. ndeysaan na junni nit toog lim la bëgg wax dala koy wax. dégg na ma ak moom 21 ans mu doog génn àddina. moo la yar moo mm. man du ma làkk samay wax. Mm-hmm. man mi la ne kañ ngi nii fayeku ma boo ma déglu woon ma wax la li ko waral. waaw li ko ma ci code. waaw mais nag ñu yeggale balaa ñu génn itam. waaw léegi fi ñu na de. waaw même yëgali naa war a na. waaw maa ko a leer déedéet day leer de. maa ngi mu ñëw ay eh, code amu ci. code boo ko leeralul tooñ direction bi. dëgg la direction bi defuñu la dara. dëgg la. li waral juróom benn weer a ngi nii fayeeku ma. Mhm. juin ba décembre duma ma ko fayeeku te terew maa liggéey. Mhm. te tey laa gën a rafet. Mhm. tey laa dàq sañse tey laa gën a yiw tey laa gën a silwise lu ko waral léegi lu ko waral ñaar dafa taxaw mooy tey ñi ma seen communication nga xam ne lan bëgg ci nit ñi bàyyi leen ko xel ci wàllu wan a yëngu Omaro lañ ci doylu mhm. Omaro lañ ci wóolu moom lañ ci yaakaar mhm. tey ñoom li nu may fay rek man doy na man sëkk man de si fi bu ko neexee alak njaay na ma ne yow amatoo fi salaire mhm. du ma liggéey si parce que salaire bi ma am ci mbedd mi man mën naa lekk fukk yoon li ma am kër gi ndeysaan xam nga la moo ma ko may xam nga lu ma ko may lañu soxla ci sama jëmm ji maa ngi koy matale ci sama diggante ak ñoom ba mu mat sëkk li waral nag direction bi ma mën a toog six mois du ma fayee ko muy juin ba décembre mooy man maa ñëw ne leen fekk six mois li ma fi am dajale leen ko ngeen jox ma ko ko soxla aw ko dura. ok ñu dajale li ma fi am jox ma. may mm. liggéey turu ma fayeeku. kooku bu leen bu fayeeku. waaw waa léegi waa lan moo war a tax. non non ma yeggali yaa liggéey waaye yaay fay sa bopp. wa waaw eh. kenn très bien yow tu m'as compris. Mm. Eh. maa ngi liggéey waaye maay fay sa war a Omaro mi bu taxawee déglu même ma yeggali foofu dama la fay dox même ma. waa léegi doo ma yeggali boo taxawee ne man 6 mois maa ngi ma. waa luus luus c'est luus li mu wax leer na yow. waaw li ma wax dama leer leer na waaye yaa ne ni déel la waaye dama ne. boo waxee fayaku ma ni El Hadj Ndiaye fayuñu. déedéet li ma wax kañ leer na. yow nag maa bëgg a jaxase kalaas. yow da na junj tojal la ko maanaam da laa junj tojal la ko. jibi jibi yàlla ma yàlla di dénk ay nit ñu mel ni yow ci sama place. ndeysaan ndax yow danga am esprit de grandeur te da teel a dégg doomi aadama man mi la ni man maa dem ba ci. waaw baal naa la waaw baal naa la jërëjëf waaw ba. baal naa la waaw jërëjëf. ba Touré. Mhm. ne ko Touré fii ak loolu leer na Omar dajalal ma siyaar mu dajale ko jox waaw léegi li ma war mooy lekk naa avance jàmbur dama ko war a bëre waaw ah, léegi man juróom benn location laay fay weeru dee mhm. sama oto bii BMW x la essence bi journée la eh, day naan journée vingt cinq mille la day naan sama sama crédit réserve sama bien-être sama argent de poche waaw te man la may liggéey fayu ma ko ndax jël naa ko def ko ci leneen waaw léegi fan laa ko jëlee ñii ma yor seen carte bi te ñu may fay weer wu dee ñoo ma ko jox <laughs> yaa yéen di nga waa ñaanal loxo waa am xam. yàlla la man tey am naa droit. man Djiby Sèye. Mm-hmm. ñi ma yor seen communication. Mm-hmm. parce que tamit ñi may toog fii di leen communiquer di leen wax lu baax. Mm-hmm. di yor seen visibilité di leen jàmb di leen taal. ñoom ca la yëngu ñu nga ciy gis seen bopp. dëgg la waa ji bi sey man damay footballeur. man damay mbëri làmb. man damay député wala ministre. waaw loolu est-ce que nit la mais ñun bi ñuy ñëw ay yére lañ sol ay téere ko ñaw. waaw très bien. ñu taw di ko wax nit ñi di dem ñu ñawlu. dama ne jibi ku waddoo sab lammin. maintenant il faut que il faut que aussi. il faut yi ay nitu interland parce non non non bàyyi yooyu parce que tey jii tey jii tey jii tey jii Umaro dafa dugg fu am solo. ah oui communication. communication ak moyen ñoo ànd. ah oui Jibi Seye Jibi li ma lay dolli. yow en tant qu'artiste. Jibi Jibi ma Jibi Baal ma Jibi da ngay yeggal. Jibi wuyu ma dama Jibi Seye kër jënd ñu oto jox la. may ma lii. ah Jibi Seye may ma lii da ngay yeggali may ma lii ngir mhm. jëmmi sëñ Bamba dama ne. waaw bu ma waxul man du mhm. ma lekk. wax jii ma nekkee ci télé bi. waaw bu ma ko deful du ma lekk. Ismaël Lo aw ma métier. Mhm. wax ak sama métier. yaa ngi may dégg bu baax waa léegi nag képp ku may wax loo. man am naa droit jël samay engagement toog fi ma toog. na maa ngi nuyu alimatu pataatooy ca TFM. ma benn njariñ. joxuma dërëm man maa ko jox. Mm-hmm. kon dama koy nuyu te yàlla tax ak soppe ak kóllëre aw ma ci droit ah may ma tuuti man maa jox alimatu alimatu joxuma kon am naa droit nuyu ko daa mm-hmm. may dégg mm-hmm. sama jigéen la sama nit la ku bokk ci man la mais tey am na koo xam ne bu ma ko tuddee communiqué ci moom bu la cinq jotee bu fayul dootu ko doon la ah waaye mais njool ah, ah, yeggale kon njool man daan njool mu ñëw ah, njool ñëwal boo xoolee ñu bare bare ngi ciy investir bëgg ñu wane leen tey nga gis benn produit xool tele bu mel ni 2S nga xamante ne am na visibilité. commence naa produire nit ñi waaw noonu la c'est-à-dire problème en tey jii communication képp koo xamante ni. yaa ngi ci yaa ngi ci yaa ngi bëgg dugg. da nga ciy def les moyens qu'il faut. tey mën nga jël un artiste boo xam ne tey mën naa wax ni artiste euh, produit la wax dëgg ne xel parce que tamit euh, dafa am lu muy lu muy lu muy fésal dafa am lu muy wane bu artiste ba demee ba fés yow mën ngaa indi sa marque tapp ka ci kawam. ñëpp di ko gis. mbaa nga tap surtout tur ñëpp di la dégg parce que dégg boobu ñu lay dégg dafa am lu muy yokk ci sa business. da ngay xool Messi ak waa Barça rek. jërëjëf fi ñu jaar ak moom ba tey ak lim leen liggéeyal yëpp. Mhm. ndax loolu intérêt la. dafa am li ñuy wax. Mhm. il faut que mu leer. Mhm. waaw bu gars yi xalaat ni intérêt égal xaalis. déedéet. jëriñante intérêt. jëriñante maam intérêt mooy koo xamante ne tey jii ni ma ko déggee man ci ni ma ko déggee. mooy ñu la diw de nitu intérêt la mooy di